asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 17 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb tey xatam mu njëkk lam ci xëy fësal ñaari mbër yoo xam ne nii daal yëglikaay bi jàpp na ne wala boog bu ngeen jàppee ne football ba moo am ay bat boy waaye lamb ja tamit am na ay bat boy de ndax sunu lamb xëy tey tudde ko noonu muy ñoo xam ne nag seenub daje ci la yëglikaay bi ñëw daje wu ñu arbitre suuf la ñu bëre de waaye dañ leen a dajale tey ci ay chiffres atee ñu dugg ci lamb ak seen at ci wàllu boppam seen palmarès muy Siteu mu jàmm gën tarkindaa ba ama bu ama balde mu Pikine borom teew sa mel ni nag yëglikaay bi daal ci ñaar ñooñu tey mel ni ki nag seen ay chiffre boo xoolee ay at Siteu mu ngi ci fanweeri at ak benn maanaam 31 ans Ama Baldé mu ngi ca fanweeri at maanaam 30 ans kon Ama Siteu moo ko mage benn at waaye tamit boo xoolee yëg likaay bi ñëw na ci ñoom ci seen dugg làmb mel ni ki nag ki nga xam ne moom moo di Ama moo njëkk takk Siteu ngemb dugg ci làmb ji def bëre dóor ndax Ama Baldé yëg bi xam nañu ne daal mu nga jëkk bëre ka nga xam ne ni moom mooy Usu Njaay le 9 novembre 2008 boobu la dugg si ci làmb ji bu dee Siteu la moom digganteem ak ka nga xam ne nii moom mooy bébé Eumeu seen mu ngi ca ñëw le 23 janvier 2009 mel ni kon Ama moo jiitu yëglikaay bi tam ñëw na ci loo xam ne nii daal ci ñoom ñaar boo xoolee kon ñoom ñaar fi mu nekk nii Siteu carrière am mu ngi nekk gu ci onze ans fukki at ak nekk si douze ans ay victoire yi nga xam ne Siteu dajale na ko mu ngi toll ci onze ya dajale toll ci la nga xam ne moom moo di douze bu fekkee ay défaite la nag ki nga xam ne nii moom moo di Siteu quatre défaite la am Ama Baldé am ñaar yëglikaay bi ñëw na ci daal ñaari mbër yooyu nga xam ne tey ñu nga dëkk diggante Pikine ak jàmm gën ay trophée tamit ka nga xam ne moom moo di Siteu amu ca dara Ama Baldé am na ca la nga xam ne nii moom moo di benn trophée mel ni kon daal yëglikaay bi di sunu làmb tey xëy na tey ñëw ci ñaari mbër yooyu nga xam ne nii daal ku ne xam na seen popularité ak seenum pecc ak seen mën a bëre ak seen bëri mbooloo ca la nga xam ne nii moom moo di ca làmb ja keneen koo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey seq moom waxtaan muy Abdou Guèye di rakki Moustapha ak Mbaye Guèye di entraîneur actuellement wu écrit face muy Abdou Guèye Abdou nag moom la mu xëy di wax daal jàpp na ne li nga xam ne nii daal moom moo di mbirum seen seeba daal na mu demee ak la nga xam ne ni jàpp na ne xaalis bu baree bari la boo xam ne ni jaar na fa ñu bàyyi ko mën a dem noonu maanaam moom daal loola neexu tey suba waxi noppi Abdou Guèye daal xëy na tey ñëw ci mbir mooma wax ca lu yaatoo yaatu moom mi nga xam ne nag mooy tàggat ña nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Fass ba tey leneen loo xam ne nii Abdou Guèye ñëw na ci jàpp na làmb ji moom ak deewam daa jàpp ne man ta demee noonu déedéet ba tey daal mën nañ ca am espoir donte corona bi ñëw na am na loo xam ne tamit wax na ko moom Abdou Gueye jàpp na ne diggante Ama Baldé ak Modou Lô kan mooy jël risque di ko organiser fa nga xam ne nii moom moo di ca arène nationale daa jàpp na bu keroogee ku ko def moom ay risque dëgg dëgg dëgg moom nga jël di ko def Abdou Gueye ba tey mooy wax ka nga xam ne nii tamit moom moo di ministre des sports ba Matar Ba tamit jël na ci wala boog wax na ci moom jàpp na ne daal des koy bàyyi rek wala boog mu yore pouvoir di def la ko neex ba tey Abdou mu xëy tey di wax lu mel ni ki noonu jàpp na ne CNG bi tamit daal seen nagurat wi nga xam ne nii mooy seenub ñal daal du kenn lamb ja nga xam ne moo ànd ak dóor Abdou Guèye daal tey wax na lu yaatoo yaat ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb siq waxtaano ak Iba Kane yemu ca de waaye fusion ba nga xam ne ñu ngi koy wax ci diggante fas ak la nga xam ne ni moo yëgri Ndakaaru Abdou moom daa mel ni ànd na ca loola yëglikaay bi du sunu làmb xëy ñëw wax nu ko ka nga xam ne nii nag moom moo jiite CNC bi di Bira Sène yëglikaay bi xëy na tey wan ko mel ni que nag fi mu nekk nii daal ah arrêté ba daal daa mel ni génn na nag fi mu nekk nii moom mandat ba jàppal ne mu nga commencé war a jeex nag la nga xam ne ni moom mooy set octobre 2022 ci la daal mandaaw Bira Sène war a jeex démb nag moom Bira Sène moom ak kuréel ga mu jiite daal boo bëggee dégg-dëgg ña nga xam ne ñoom ñooy arbitre ya daal nañ leen dem muy Sitor Ndour ak gàngooram mel ni ki nag bañ ci jógee daal daa mel ni kon fi mu nekk nii de ah daa mel ni léegi mbir ya nag leer na ndax Sitor Ndour daal fa nga xam ne ni moo ca CNG président commission arbitre ko joxoon daal commission centrale des arbitres daa mel ni nag bangam booba delloo nañ ko ko mu war a toogaat fa nga xam ne nii moom moo di ca biir seen ba wala boog ca biir CNG ba doxal loolu mooy li xam ne nii ba tey ci journal boobu nga xam ne moom moo di sunu làmb dañ fay continuer rek buñ fa continuer maanaam dóor dóoraat daal fi mu nekk nii moom daa mel ne ña fa des muy Garga Mbossé Moussa Balla Gaye ak Boy Faye trio boobu daal la ñu nar mooy daal taxawu dóor dóoraat teg ko fa nga xam ne ni daal fa lañ ko war a teg maanaam wane fa lu leer nañ yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw ba tey dinu wax lu mel noonu ci fa nga xam ne ni moom moo di dóor dóoraat ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi nag dañuy dem ca tuus mu mel ne ki nag boo bëggee dégg dëgg daal bu doon nit ñi dañ doon am ak jaaxle wala waa làmb ji ngir saison bi ubbi gi léegi daa mel ni ki nag ci loo xam ne ni daal yëglikaay bi ñëw na tey wax na ko ci Matar Ba émission boo xam ne doon na ko la une moom dégg xam ne ne ñu nga ca di ko def bis a tegu nee na bu ko joxaati droit am ñu dellu ca la nga xam ne moom la ñu nekkoon lool mooy la nga xam ne nii moom moo di waxi Matar Ba bu nu fa jógee dem record kan fay fekk mooy Gris Bordeaux moo xam ne daal dafa jàpp ne moom am na loo xam ne mu ngi koy reproché Balla Gaye numéro 2 mu Guédiawaye ak Modou Lo le roi des arènes mu Parcelles Assainies moom Gris daal taxawaay xëy ak corona beeg na mu demee ak na mu jàpp na xëy war nañ ko caa doxee waxee ko ca ba tey bu ñu continuer ci record ba tey rek ñun ñuy fàttali tamit nekk daal Sitor Ndour moom léegi nag jëlaat na président ba nga xam ne mooy commission centrale aw wala boog ab bangam mu fas yéene jiite doxal moom Sitor nduur ba tey Gris 2 fusion wu Fass ak la nga xam ne nii écurie Ndakaaru la moom Gris nag ba ko ci Abou Ndour laajee daal lam ko xamale ne ko foofa moom aw la ma fay wax ndax mën mbër kese laa te di xale loola moom samay kilifa ak sama staff ñoom ñoo koy dox lu ñu def daal man Gris 2 maa nga ca ginnaaw loola loolu ma waxi ka nga xam ne nii moom moo di Gris Gris 2 ca fusion wu Fass ak écurie Ndakaaru mbokk yi nuyooti naa leen ziarati leen ah internautes yi fu ngeen mën a nekk wala téléspectateurs yi Equivox Vox Arena di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen di ko ñaanal bépp doomu aadama fu mu mën a nekk si àddina bi rek di leen bégee waaw di ñëw tey nag ak yéen ci xët wu njëkku yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmba Ama Balde Siteu ñaari bad boy ñoo xam ne daal ñoom la yëglikaay bi boole tey lam leen boole nag du dañoo bëree waaye maanaam dafa ñëw seen at yi ñu am ci làmb ak at yi ñu ci duggee seeni at ci boppam bu dee Siteu la boo xoolee mageen Ama Baldé benn at parce que moom mu ngi ci 31 ans nañ ko sunu làmb waxe Ama moom mu ngi ci 30 ans mel ni kon ñaar lañ ñoo xam ne daal parce que mën nga ni ñoo maase parce que benn at lañ magante carrière tamit boo xoolee Ama am na si làmb ji 12 ans ndax 2008 la ñëw ci ñëw ci wala boog Siteu mu ngi ci onze victoire Ama mu ngi ci douze ba tey Ama moo ko rawee foofu ci wàllum ay victoire côté défaite tamit Siteu boo xoolee ba tey moo ëppale Ama ndax am na ci lu tolloo quatre kii di am ci ñaar ay trophée Ama am na ci benn Siteu gañewu ci dara noonu lañ ko sunu làmb xëyee tey toppal ñu ko mu nekk ñaari mbër yoo xam ne nag wax dëgg yàlla ah boo xoolee mën nga ne daal bokk nañ ci xale yoo xam ne nii ci làmb dañuy dundal làmb ci cosaan dañ koy dundal ci culture bi nga xam ne moom la làmb war a làmb lépp lépp aar mbaag pecc mbaag sabar yaag nañ koy defee mbooloo ma leen di topp ak dégg gañ dégg galañ xam nga Ama Baldé ak Pagaye mbay Siteu ak Jili Seck loolu xule tuq su bën la saañ ba réer moo tax saa nit ñi dañuy yàkkamti gis ñaari mbër yooyu ñu wàcc ci làmb ji bëri parce que la ñu yor ci xorom dafa bëri te mbër dañ caa soxla nag xorom war war nga boo waxee mu neex boo feccee mu neex soo bëree mu neex te ñoom loolu dal na leen macha allah ñuy ñoo xam ne laf cat rek lañ leen di wax waaye boo ñëwee nag ci côté ay palmarès yooyu mën nga ne Ama ah jiitu waaw loolu moom mooy li am parce que boo xoolee ay victoire moo ëpp te ay défaite am moo gën a néew bi ci des mooy tamit Ama dafa daan ay mbër yoo xam ne Siteu bëreegul ak ñoom parce que ci palmarès boo ci daanee ki nga xam ne moom mooy Tapha ku ne xam ne ni mbër mu mag la ci VIP la bokk te Ama réussir na loolu daan ki nga xam ne mooy actuel adversaire u Siteu di Papa Sow tey mu war a bëreeg le roi des arènes Modou Lo kon defe naa kon kooku mën nañ ne mu jiitu Siteu ci côté boobu waaye terewul Siteu itam mu nga ca yoon wa adversaire yu Ama daan Siteu bëri na ak ñoom daan leen mën nañ ci lim benn adversaire bokk ku mel ni ki nga xam ne nii moom moo di Zos Siteu da ko Ama koo daan Siteu daan ko waaye bu ñu demee ca guy gi tamit fa nga foofa moom Siteu dafa am problème mais Ama combat bu njëkk dafaa daanu deuxième combat mu gagné ko kon ba tey nga xool xam ne bokk nañu ay adversaire ci biir làmb muy ñaari mbër yoo xam ne daal ah xam naa seen combat bis dina am. dina ñëw te bu ñëwee di nga gis bu neex ndax doxoon nañ ko fi sax lu tuutee ko yàqoon diggante Siteu ak Ama naroon naa taxaw waaw waaye nag xam naa bu yoon jeexul waaw sul du jeex mais ñaar mbër xam ne daal ñu di jaaraamal parce que seen taxawaay ci làmb rafet na hmm? ñëpp maa yëpp yëpp am yi que ñaari gox lañ yoo xam ne ni goxu làmb la dundal làmb lañ munu continuer ci réglikaay bi Abdou Gueye coach su principal écurie ñëw na tey ci taxawaayu CNG bi mu jàpp ne xaalis ba bëri ba fa jaar ak yu mel ni ki noonu ñu noonu mu dem daal jàpp na ne moom loolu vraiment neexu ko fusion wu ak écurie Dakar moom ne ah loola moom ànd ci Abdou moom ne loola moom ànd ci cent pour cent ah loolu nag bu waxee moom defe naa ne ko ki wax war wax ndax Magui Tafa Guèye di rakku Mbaye di entraîneur u écurie Bira Sène arrêté bi nga xam ne moom la ministre bi waroon def dafa mel ni génn na ba fi nekk ni mandat ba kon door na war a jeex la 7 octobre 2022 yàlla nañ ko fekk te tal ko te balaa ñu caa yegg li xaar ci moom la mooy président commission centrale des arbitres mu jiitewaat ko toog ca bangam moo ki arbitre yo ngi ko seqaloon mel ni kon loolu tamit rek mooy rek lañ doon ñaan rek jàmm daal moo waram ci diggante CNG ak arbitre parce que arbitre yi ci biir lañ bokk te ku bokk parce que am ñoo xam ne ci écrit ba lañ nekkoon ñu mel ni ñoom Garga te dafa mel ni ak ñoom Gora Sock dégg nañ leen bi ci beneen écrit muy Jàmbaar Wrestling Academy kon ñoom ñi fa des nag trio boobu ni ko yëglikaay bi waxe daa mu nekk nii muy représenté ak Modou ah la mu leen di représenté nag xëy na mooy tekkaaral jiitu waaw parce que nag tàggee boo gis am na jàppal diw te yow mu yaay président des lutteurs en activité yaakaar naa actuellement Modou Lo mooy roi des arènes Balla Gaye 2 ak ancien roi des arènes kon defe naa yéen ñooñu moom lu leen waaye mën a wax moom war a gën a mën a wax li nga xam ne nii moom mooy tax làmb gën avancé dem ca kanam di ko def di ko wax doon yéen a nga ci nag waaye ngeen yokku ko waaw ndax yokku jéego yàqul dara Sitor Ndour it ñëwaat nañ ci moom ak ah léegi nag lañ ko delloowaat muy ay yëfam waaw jiitewaat na mbir ya yow it yàlla na fa réussir lañ ko fa tege moom Sitor ñu koy nuyu di nuyu arbitre yëpp ngir de fusion wu Fass ak écurie Dakar moom nee na loola moom amu ci kaddu ña ca am kaddu mooy staffam ak ay kilifaam waaw loolu tamit defe naa ne baax na ci xale bu ñu yilif waaw comme da nga ami kilifa yow demal entraîné ji demal bëre ji moo la war defe naa am na bu fekkente ne da nga ñëw ay fekk ay kilifa di ko wax naa ne a wëgg ko def loolu moom yow bu keroogee la nga war rek mooy toog déglu leen waaw terewul nag boo ca waree wax boo toogee ak ñoom fa nga ca war a wax da nga ca wax sa xalaat parce ñu laaj la ci sa xalaat waaye lii itam mën naa nekk maanaam daal moom ne na moom loolu amu ca lu mu cay def wala lu cay dindi tey loolu moo fi ñëwoon di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal suñu soppe yëpp ñi ñuy topp fi nga xam ne nii xule moom moo di ci biir internet bi di topp Equivox amuñu seen fay yal na leen yàlla fay waaw di nuyu koo xam ne vraiment tey gis nga tey ni ma def ci blouson wu Michael Jordan yaa xool lii xule muy Serigne fàllu ñaa di sénégalais boo xam ne mu ngi dund fële nga xam ne moom mooy Maroc di acteur maanaam di su suyegatu film di koo xam ne ni taalibi Serigne Touba la di ku baax di sama soppe vraiment kere laa toog ba CP bi ñëw indil ma lii ne ma sëñ Fallou ñaam moo ko jox muy blouson bu rafet kon Fallou yàlla na sa jàmm yàgg di nuyu sénégalais yi nekk Maroc yépp ak yi nekk Côte d'Ivoire ak Gabon Gambie Guinée Mali États-Unis France fu ci waay ne itali ñoom ñëpp ah ñoom Mbacke Kébé du ma leen fàtte Ndongo Fall ñoom ñëpp maa ngi leen di bégge mais di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ñu ngi topp revue de l'arène bi du ma leen fàtte gaa na a baax waaye wax di wax leen wax moom muy samedi bés boobu damay bañ ñu jaawale ndax Asi Diagne sama naar ba mu ci nuwaat sot mooy fête anniversaire am le 19 décembre Asi Diagne bu xarañ loo maa ngi koy nuyu di nuyu ñoom tuuti Yaay Sarr ñoom Khadiros ñoom ñëpp maa leen di bégge di nuyu soppe yëpp mais waa Petersen du ma leen fàtte jaaykat yi nekk Petersen yëpp maa ngi leen di bëgg di nuyu waa Colobane ñoom tamit sama gars yi ma ma caam happy maa ngi koy bëgg ak suma rakk àll ñoom ñëpp ñu ngi Colobane di dóor waar di nuyu ñëpp xulle di la ñaanal jàmm di ko ñaanal hélas